aman nañu mbégte dalal leen suñu émission daanaan gi ni ma koy waxee ci la rajo du bonheur Rewmi FM samedi bu jot 16h jàpp 17 tey suñu ay invité ñu ngi bokk ci crew Y'en a il s'agit de Haro et de frie man Free laay wax parce que loolu laa mën il va se présenter tout à l'heure donc euh, ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom lañuy def ak groupe bi ñu bokk tamit di Y'en lan moo fay li nga xamante ne mooy seen rôle son plus tarder kon ñu dugg ci émission bi en ji mais laata suñu ay invité du nuyoo ma paas sama binam ji ki may defal émission bi samedi bu jot mu nuyoo lu bees. ça va Mimi maa ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee auditeur ak auditrice su Rewmi FM surtout ñuy déglu Rewmi People chaque samedi maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen jaar samedi bi passé dafa am lu ma teewoon moo tax teewu ma waaw. lu am solo la woon <laughs> sant yu ñëw naa ñu war a dalal waa mouvement yi a marre ñaari membre euh, Aro euh, from pikin euh, ñu war a daral Ferrero de forum Daaf Gero. Mm-hmm. xam naa mu ne Daaf Gero ñun xam suñu auditeurs yi du ay duñ déglu hip lu bëri. seen ñoom affaire people la ñuy déglu waaw. Mm-hmm. mais Ferrero mi ngi dëkk Dalifort Aro mi ngi dëkk Pikine. Mm-hmm. ñoom lañ fi dalal tey ñu nekk ci mouvement Y'en a marre. fas yéene waxtaan ak ñoom ci xew-xewu jamono bi. À ma gauche, à ma droite, à ma gauche, il y a Aro, hein? C'est bien cela. Lu bees. waaye mu ngi cool ah oui ah di leen bëggee ah Mimi Djily donc euh, auditeurs yi. Mm-hmm. donc bëggee ñëpp ah mm-hmm. waaye. waaw mooy nuyoo bi. waaw waaw di leen wax <laughs> waaw. Mm-hmm. jàmm ak salaam xam nga waaw ndam ak yokk. jaajëf alors Freelodeur. naka moo naka Galsen. waaw ça va ñu ngi courant ah, ñu ngi xendalan ah, ñu ngi ñu ngi pousse ñu ngi pousse quoi. xam nga ah? mhm. accord ma première question maa ngi koy posé ki nga xamante ni mooy fri alors ñu gis ni groupe Y'en mooy donc euh, Aro <laughs> groupe Y'en ñu ci gën a ràññeeku bokk na ci ñoom Thiat ak ñeneen ñi ci des pourquoi yéen vous n'êtes pas trop au devant de la scène lu tax du ñu faral di leen gën a gis. bon juste pour euh, pour respect suñu règlement intérieur et que pour bañ a indi benn euh, euh, nan la ko gars yi di waxee sabar bu tas. donc boo xoolee Sénégal loolu suñu problème la donc mun euh, mënuñu gérer parce que pour gérer il faut que am ñu nekk ci kanam am ñu nekk ci ginnaaw. donc loolu la ñu nekk ci ginnaaw ñooy pousse ñu nekk ci kanam. donc euh, au sein de Y'en a tout se discute donc comme ku mel ni man ak ay Firi. yaa ñun la loolu nekkul suñu problème suñu problème mooy juste que est-ce que ñu ngi doxal est-ce que ñoo ngi liggéey quoi. Mhm. donc euh, ñu ngi ci suuf et que ñu ngi ci kanam c'est pas important mais le le boulot qu'on exécute. Mhm. Euh, loolu la ñuy xool su fekkee ne mu ngi baax mu ngi baax parce que on avait Fadel Barro comme comme cordonateur donc ensuite on a Ndo Sané et que ñoom ñëpp ñu ngi def seen rôle comme ni ñu ko bëggee. Mhm. donc euh, on est fier de et ñu ngi suñu kanam. Euh, bu ñu nee ba suba Firi war a nekk ci kanam wala man war a nekk ci kanam donc day nekk mais instant bii nii il faut qu'on reste Y'en a marre képp ku nekk ci kanam ñu xam ne moo nekk ci kanam. Mm-hmm. et que ñu xam ne Y'en a marre juste la du du visibilité. Mm-hmm. et que aussi du du maa dàq lii du maa mën lii mais lépp lu ñuy wax dañ koy waxtaan et que. Euh, intérêt commun la quoi donc du intérêt personnel. d'accord euh, bien sûr allez-y. lu ndaw la rek xam nga boo duggee jàkk. Mm-hmm. imam imam imam mooy jiite quoi. ça ne veut pas dire que ñi nekk si jaax ji julli yëpp moo leen gën ëpp xam-xam quoi. Mhm. mais lépp loo gis day njiit quoi. mais en fait ñun Y'en a marre tamit booy xool du parti politique parce que tous les deux ans dañuy def AG. def nañ AG instant suñu coordinateur bi Alioune Sané la ba ñu njëkk def que mouvement bu njëkk Malal moo nekkoon directeur artistique bi instant yi c'est Cap de directeur artistique bi xam naa ñu bëri xamuñu ko kon donc ça veut dire que ñun nekkuñ ay kii moo war a nekk fii kii moo war fee quoi. affaire bi les choses ça vient naturellement mais toujours dans la démocratie quoi. Mm-hmm. Sénégal moo ñu ñor. Mm-hmm. du du du moo ñu ñor wala jiili wala yow wala man non. Mm-hmm. c'est le Sénégal qui nous intéresse quoi. d'accord ni euh, ah. aaro wax ngay dëggal moom nee na le plus important ce n'est pas être devant. c'est pas la d'après toi qu'est-ce qui est le plus fondamental dans ce yow personnellement sa nekkin foofu lan moo ko wundu ak aussi ban taxawaay nga fa am. waaw jës euh, mouvement ba ñu koy créé ñun déjà on était des ay rappeurs lañ balaa ñu nekk ay Y'en a mhm. kon donc pour ñu kii di rab rek di di activiste quoi. c'est vrai que rab du activisme moo ko tax a jog mi après da lay dab parce que bu ñu nee activisme rek ça c'est pas sànni ay xeer taal pëna activisme dafa am citoyenneté am lu bëri. Mhm. kon donc mun na ne da ngay rap ngay représenter ba peuple bi wala porteur de voix nga sa dëkk bu amee problème wala sa koñ bu amee inondation duñ la wala sa koñ courant buy coupé du ñu gis wala maire bu nekkee foofu di def naka su dul noonu kenn du la gis kenn du la dégg kon sa nekk rappeur dina xaw a jaaxal sama genre yi quoi. Mhm. parce que pour ñun musique boo ko xasee boo nee porteur de voix nga da war a taxaw sa askan da war a taxaw sa dëkk taxaw sa waa koñ. Mhm. taxaw sa continent ak sa xeet ci loolu la quoi. Mhm. kon donc loolu moo waral bu ñu créer mouvement bi ñu wooñu te on te toujours comme ci optique boobu lañ nekkoon on est des lu ñuy forcer. c'est naturellement day c'est inné en toi du fekk ñu nekk ay des artistes engagés far lii ñëw ñu ñu ñu nekk yoon bi mm-hmm. nekk sotti ceeg def ci quoi. yaa Aro da Aro moom mu ngi Aro na. Aro moom mu ngi bokk ci benn crew bu ñuy wax ñamu mbaam quoi. bu mm-hmm. njëkk mais léegi wërngal la quoi ñu ngi dëkk Pine man maa ngi bokk ci benn groupe bu ñuy wax Fukkeen Cook ñu ngi dëkk Daaf. Mm-hmm. Dalifort quoi. groupe boobu laay représenté kon donc yaanaa ma entité la boo xamante ne ni day regroupé ay groupe yu bëri quoi. donte ñi nga wax sànq ñoom ñoo gën a fës mais ça regroupe des rappeurs des journalistes des enseignants des danseurs. xam nga bëri na ay na bëri nañ quoi en tout cas c' est le Sénégal en. c' le Sénégal en miniature quoi am na ay am na am na ay soldats yu ci nekk am na xam nga. Mhm. bëri na ay nit yu quoi. d' ji avant ma la jox léegi seen intégration ça est fait comment nan ngeen def ba intégrer groupe bi on vous a sollicité vous êtes venu mhm. donc euh, apporter votre pièce à l' édifice ça s' est passé comment. Bah oui, euh, les membres fondateurs, donc ñoom bi ñu toogee waxtaan donc ils ont ils ont ñi nga xam ne ñoo gën a jege et yaakaar nañ ne moon nañ ñoo apporter seen soutien donc noonu la demee ils nous ont ils donc ñun on a été appelé par Malal. Mm-hmm. donc booy ñëw leen ñu liggéey donc euh, vous êtes engagé seen musique c'est une musique engagée ngeen def ñëw leen ñu liggéey ci Y'en mm-hmm. donc euh, et li jotoon xew ñu jot ko gis. école loolu la woon quoi donc ñu ñëw ñu ñu dugg ci biir école ñu gis si suñu bopp. waaye euh, fukkeen kook noonu defe naa ñooñu lépp la gars yi ñëwee léegi mais nag bi ñu ñëwee ba toog donc engagement euh, des fois pour nga respecter sa engagement donc il faut que nga nga ñeme dékku mettit. te su ma nii maanaam nga bañ nga taf say nopp aussi. te su ma nii parce que. à moment des gens qui te disent que ne diw gënu la muus diw gënu la muus lu tax mu lay jiite. yaa mm-hmm. ngi mais su fekkee yàlla may na la xel mu sell da ngay xam ne du loolu Macky Sall mooy président de la République nekk mais nekkul moo ëpp ay diplôme Sénégal. Mm-hmm. wala moom moo gën a muus sénégalais yëpp. parce que moom mooy njiit et que il a cherché créer parti yoom defar lépp cherché ko peut-être benn euh, benn leadership boo xam ne nii peut-être il a cherché pour nekk ko loolu la. et que mm-hmm. ñi nekk ci ginnaawam tamit dañuy gëm dañuy jàpp ne moom moo fi nekk nañ ko jàppale ba mandat am jeex. Mm-hmm. sa se passe comme ça ça se passe comme ça. donc ñun dañoo ñëw ci combat bi nekk ci et que des fois personnellement am na ñoo xam ne duñu bëgg nekk ci kanam. comme man. ay hommes de l'ombre donc man personnellement. donc même man sax war a su ma waree nekk ci kanam peut-être association bi nank lay nekk. est-ce que di jàngaale ci suuf di jàngale ci suuf. est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un jour nga nekk parce que sama sama jëmm bu nekkul au devant. Mhm. des fois mes mes idées sortent devant. Mhm. parce que on est bien organisé des fois Ndo Sané bu toogee di wax li muy wax sama xel lay boole ak xelu kii taabal la ñuy toog ñun ñëpp discours bi lii la war a nekk ñu wax ci ba jubóo ci. te soo naa ni bu demee mu wax loolu donc moom li muy wax ñun la ak moom. Mm-hmm. donc loolu la donc sama jëmm mën na mais samay idée di feeñ. Mm-hmm. par sa parole. instant bi loolu lañu gëm maanaam moom fu mu taxaw il me représente. Mm-hmm. donc loolu laa gis ci moom et su paree damay damay am. kii pour critiquer ko ne ko waroo woon waxee ni mën nga defee nii mën nga defee nii mën nga defee ni mhm. parce que tamit c'est ça. Mhm. donc noonu lañ ci ñëwee ñu dugg ci donc ay post ak yu yoog nii donc on est des artistes tey xam na ne communication peut-être artistes yi moo ci gën a gaaw donc ñun tout ce qui communication lu ñu war a wax ak euh, euh, population bi. donc ñun on s'en charge loolu tey loolu moo ñu di fii rajo. Mhm. loolu moo tax ñu defar sound bi def ko vidéo donc pour pour sensibiliser ci affaire coronavirus bi. Covid 19 bi. d'accord maa si yokk ah. mais bien sûr. <laughs> dama yokk tuuti xam karaw quoi parce que en fait comme ni Aaro waxee ah, mouvement bi ñu koy créé amul ku ñu woowul. Mm-hmm. rappeurs yi woo leen mais xam nga sénégalais parfois euh, am na ñoo xam ils sont animés de mauvaise ñoom bu ñëwee jiite wuñu rek. Euh, ñoom dañuy jàpp ne ñoom dañoo war a jiite parce que am na ñoom ñoo ko nekkoon nañ ci mouvement bi. Mm-hmm. mais dañuy gis chaque fois ñoom dañuy bëgg a wax te alors que waruñu wax ñoom dañuy jàpp ne ñooñu dañoo war a wax affaire bi ñun a jiite après ils se sentent frustrés ñu génn alors que deal bi loolu. Mm-hmm. man bu Sénégal taxee jóg ka Aaro wax wala que Jili wax que Mimi wax c'est la même chose l'essentiel li Mimi di wax man sama idée mu ngi si idée Jili mu ngi si idée Aaro mu ngi si loolu moo solo quoi. Mm-hmm. moom dañ lay wax da nga mun fecc rek nga boole ci tëyëx. Mm-hmm. loolu moo yàq moo yàq parti yu bëri ak ak groupe yu bëri quoi. Mm-hmm. da ngay ñëw nit ñi ne yan chaque jour yan fadal rek mooy wax yan chaque jour caada ngeen di gis yan dañ leen di muuroo. yéen mos ngeen dund mel noonu ci biir groupe bi. Euh, comme lan. dundu ñëw di jéem a luubee. waaw waaw loolu day am loolu day am da ngay toog sax ñu ne leen booy da leen di muuroo rek. <laughs> xam leen lu géej gi di gaañu gi dóor moo. ni nga da ngay li ngay wax da nga a maîtriser ñu bëri dañuy wax te xamuñu lu ñuy wax dara. yaanaa maa dalu ne mën nga critiquer wax loolu neex mhm. mais amul lu ko gën a transparent amul lu ko gën a am démocratie ci organisation wala ci mouvement c'est pas pour rien ay président États-Unis di jóge ne dama dama bëgg rencontrer mouvement Y'en a marre si c'était pas mouvement crédible Obama du fi ñëw dafa war a gis mouvement bi ay ministres yu jóge France du ñoon dañuy rencontrer que c'est un mouvement crédible et bien organisé mm-hmm. nit mm-hmm. neex mais ñun xam nañ lan lañ yor ak ñu am ba ay université ñu invité man récemment mois de novembre j'ai représenté le mouvement Y'en a mm-hmm. a mag ci États-Unis Yale University dañu yónnee invitation ñu dem di waxtaan ak problème Afrique ak étudiants africains yu fa nekk kon donc bu fekkante ne c'était un mouvement boo xam ne c'était un mouvement irrespectueux wala mouvement bi amul crédibilité université duñu la woo defaral ay conférence ak panel. Mm-hmm. kon bëggoon naa nga ñëw tuuti ci organigramme structure bi. Mm-hmm. comment c'est libellé comment ça se passe vous avez un conseil d'administration comment vous avez organisé le truc au sein de vous. waaw Y en a comme yeneen mouvement yi la peut-être lu leen wutale moom du politique. tout ce qui est politique ñun nekkuñu ci quoi mais c'est bien organisé dañu ne kii moom mooy porte-parole bi te day am ay daanaa ma wax la ko parce que ba ñuy def marche ci parrainage je me rappelle très na dafa benn bavure mhm. mais après ay daan dañ ko ci dal dañoo ne yow doo demati fenn dootoo waxati t'as plus le droit à la parole ba nouvel ordre après on va mhm. ko defee bu ma yemale ma garçon ici ay ak mouvement bi boo génnee nga wax au nom du mouvement nga def fa bavure nga def fa toj-toj après ay daan dalay dal tu n'auras plus le droit à la parole. Ah, alors Aro. waaye euh, pour wax ne jusque boo xoolee euh, benn poste rek lañ fa lañ fa fësal. Mhm. muy fas coordinateur bi. parce que euh, on n'a pas besoin de beaucoup de mhm. su coordinateur bi fësee rek après di nous on le gère parce que porte parole bi mën nañu diw la mais des fois nga gis ne Simon génn wax. Mhm. des fois Malal génn wax des fois kenn génn wax. donc des fois kenn mooy woo ndoo mooy woo kenn ne ko jëlal kii nga wax ko dégg donc war mën nañ ma woo ko ñun bi ñuy ñëw rajo dañuy jékki-jékki ñu woo la. Mm-hmm. yow yaay dem fii yow yaay dem fii yow yaay dem fii donc euh, comme équipe la rek quoi donc su défenseur bi yéegee marqué ji des fois mu tardé. donc milieu terrain bi ñëw jël place am donc noonu la ñu noonu la ñuy fonctionné woo quoi que suñu suñu tënkoo ci post yeeg yooyu yëpp après day indi benn xëccoo wala benn affaire yi noonu. Mm-hmm. donc tax loolu dañ ko teel a comprendre. et que affaire yi ñu koy ñu koy changé muy tourné instant bi nii directeur artistique bi cap la cap de sës eson la ne mm-hmm. Simon mooy adjoint mais soo fekkee ñoom ñaar doo xam kan mooy kan mm-hmm. parce que Simon bu jekkoo day def moom bu mu jekkoo day def man su ma jekkoo damay def mm-hmm. instant bi nii ñu ngi wër rajo yi moom gisoo ko ci noonu la demee donc amul ay euh, euh, parce poste yoo xam ne dañ ko teg nii këg ne bon kii ko doxul keneen du ko dox. Mhm. donc on ne marche pas comme ça. Arou qu'est-ce que y a cette entente c'est peut-être parce que vous êtes rappeur parce que je parie que mouvement bi bu ko ay mbalax maan sàncoon. <laughs> tas na waaw waaw mhm. parce que tamit euh, euh, dafa am benn esprit buy animé rappeur. Mhm. tout le temps rappeur day nekk bañkat te waaw mooy révolutionnaire ba pare euh, on a compris que ne. donc il faut il faut que ñu marqué suñu temps. Mm-hmm. te marqué suñu temps bi du def say sa poste ay xaalis ak yooyu noonu quoi mais lan nga mën a apporter société bi te pour nga apporter société bi dara mooy il faut que yow nga abandonné sa sa genn wàll joxe ko. Mm-hmm. est ce que wax nii que tamit da ngay dem ba xam ne man ak man ak firi pour ñu pour ñu dem il faut que ma koy ma koy baal mu may baal. Mm-hmm. donc loolu lañ ko teel a comprendre et que des fois dañu doon réunion autour de nous dañuy xuloo. on, on se on se dise la vérité. ñu xuloo ci biir après ñu réglé ko ñu ñu eggali parce que ay nit su suñuy ànd loolu feeñu fa mooy ñu ngi naxante. loolu la parce que da ngay nekk ak sa sa waa kër seen biir kër ngeen bokk ndey ak baay des fois day metti. Mhm. est ce que nag su ngeen bëggee dimbalante da ngeen di waxante dëgg ñun ci loolu lañ nekk. est ce que après nag dañ cee yàgg nag moo tax ba ñu ba ñu comprendre parce que au début. gars yi dañu doon wax ne woy gars yi leen di pour dóor xaalis beeg yooyu noonu ku ci mel ni man man xam ma la laa wax ñëw pour meeg ma ni yóbbuma yaanaamaar avant yaanaamaar maa ngi doon lekk maa ngi doon sol man dama ñëw yaanaamaar pour participer. Mhm. déjà am nga ci ñaata at. 2011 ba léegi. mine de rien huit ans euh, ba tey ñu ngi fi. te soo tax ni donc lu ne dégg nañ ko. Mhm. mais tey. Euh, dëkk noonu la war a doxee nekkul ne yow chaque loo boo jógee rek sa pose moo tax. des fois da ngay jóg yow wala soit sa sa kanam xool maam sa kanam tax quoi maanaam peut-être lan nga yéene réew mi fan nga bëgg réew mi dem. Mm-hmm. mais malheureusement dañoo am ay euh, peut-être ay ay noon yoo xam ne ni euh, politique bi la et dañoo mën a wax et que ñoo dañoo war ay médias donc lépp lu ñu liggéey dañ koy yàq. Euh, firi loolu su la waxul woon ne dem na animé ji conférence bu mag ci université bu gën a mag. Euh, États-Unis doo ko yëg. noonu ak noonu gars yi ñu ngi koy def. donc on n'est pas l'ombre nit ñi di feeñ kese suñu liggéey ñu ngi koy def man rek waroon naa deme Espagne mais après dañoo dañoo visa bi pour benn conférence ak yooyu noonu xam naa peut-être ay soucis euh, euh, sécuritaire ak yooyu noonu noonu la demee donc on bouge kaso mhm. naa te suñu kàddu boobu noonu moo ñu loo mhm. suñu engagement boobu noonu moo ñu bougeloo quoi mhm. alors Free Quelle est euh, la force de de Y en a marre pour que l'équipe soit aussi soudée d'après yow. waaw pour man dëggu dëggu bi la rek ah parce que pour man xam nga fës bu ñu bu ñu fekkee dañoo am benn combat boo xam ne ñun dëgguwuñu si pour man mouvement bi kon naxasaay na bu jaa quoi parce que vraiment Sénégal moo ñu boole Sénégal moo ñu ñor quoi ñun dañoo gis ne. avancement Sénégal moo ñu yëkkati parce que ku nekk comme ni doon wax rek ku nekk yaa ngi sa yaa ngi sa groupe di évoluer di génne say album def say concert muy fees yaa ngi am yaa ngi am sa moon sa par rapport ak loolu noonu quoi bu ñëwee ci mouvement bi parce que dañoo bëgg Sénégal jëm kanam parce que américains yi gënuñu muus français yi gënuñu muus ëpp ñu xel xel bu ñu am ba développé seen dëkk ñun xel boobu lañ mën a lañu lañu lañu lañu am nañ ko développé suñu dëkk ci kaw ñu ñu ñu booloo nekk benn Sénégal kese tax ñu jóg. Mm-hmm. loolu kese la parce que maa ngi doon saan benn jour benn vidéo coon naa bu ñu mu ne. moom dafa bëgg nu mu ture fii ak ay jimi jamono jeune Sénégal du concurrence ak jeune américain loolu war a mën a nekk la war nañu mun jël pays ci ginnaaw ci ci kanam Amérique kanamu Chine. mais loolu ça dépend de de nos dirigeants suñu njiit lay dépendre quoi kon suñu njiit yi bu ñu defee tous les mois yi nga xamante ne ni dina tax éducation bi dox suba benn Sénégal mun na defal mun na defal hélico mun na defal mun na defal ay ay vaccins yu bëri par rapport ak ak ay maladies quoi. Mm-hmm. mais bu fekkente ne état bi deful lu mu war a def ci ci médecine ci éducation. chaque jour ñun dañuy topp seen ginnaaw di daw rek. Mm-hmm. est-ce que comprendre parce que suñu président yi booy xool dañuy topp mais les français qui suivent là Macron c'est un mm-hmm. ñëw Afrique wala ñëw Sénégal di ñu dóor bu ñu dóoree fu mu koy yóbbu France la koy yóbbu. Mm-hmm. te français diñ ko jéppi par rapport ak loolu. pourquoi pas ñun ñun suñu président yi man bañu ma ñu joob ak français yi wala ñu joob ak ku mais ku ñu mun ti munti liggéeyal muy russe muy naar di français jiitalal intérêt sénégalais bu jiital yow sa intérêt bopp. loolu kese la parce que booy xool euh, problème bu ñu am temps yi ak français autoroute à bi ak terre beeg yooyu terre bi war na mun a egg ba ba jas parce que début mhm. mais gars moom autoroute à péage ko parce que mu ne moom affaire fa la yem parce que bu bu terre bi continué ba jas kenn du yëkkati à bi moom boobaa chiffre d'affaires am day wàcc xamuñu loolu suñu yoon nekku ci. Mm. ñu lu ñu arrangé la ñu def parce que bu terre bi eggee ba jas baadoo li nga xam dañuy tukki njëgu njëgu jël à péage njëgu jël taxi train bi la ñuy jël dem dem aéroport dem voyager. kon donc moom xool na intérêt boobu kon suñu njiit yi dañoo war a xool ñoom tamit intérêt population même bu fekkente ne dañuy liggéey ak tubaab yi. Mm-hmm. waaw d'accord c'est ça. ji. ne sànq bi man maa ngi ci émission bi bàyyi parce que wax waxtaan lu ci neex mooy wax ak ku am dégg-dégg. Mm-hmm. c'est ñaari gars yi nga dalal macha allah li ñuy wax leer na nañ amul tricher mm-hmm. c'est puis ñi ngi wax dëgg gi nekk biir mouvement Y'en a marre. sa loolu lañ ci soxla euh, comme ni ko Aaro waxee rek fës bi amul solo mais gars yi xam nañ ni ñu ngi fa ñaari kilifa lañ fi dalal mi peut-être ñu bëri mun nañ leen bañ a xam mais ñun ñu nekk ci mouvement hip hop bi xam na leen bu baax a baax sax xam na nañ respect bu nu am. Mhm. Euh, ci peuple Sénégal. léegi man sama première question lenn la après mu bàyyi la nga doxal sang bi man baal ma toog di déglu rek di consommer quoi. gars yi waaw non instant bi ngay maa ngi koy di ko dund. Uh-huh. mais damay dugg ak ñoom ci single bi bi nga xamante ni moom leen génnee euh, di sensibiliser Sénégalais yi ci wàllum coronavirus bi. Mhm. single boobu noonu damay gis dama gis ni. Euh, sànq maa ngi leen koy laaj ci émission bi est-ce que yeexul génn mais expliqué nañ ci mais dinañ ci ñëwaat. Mm-hmm. damay gis ni Y'en a temps yële ñu ngi doon def ay yoo xamante ni ay actes nice la. gis Y'en a marre dañ daan def ay actes yoo xamante ni ay actes la mais presse bi daaw ko génnee. Mm-hmm. yéen tamit da ngeen daan toog rek. Euh, mais dañ gis ni single bi bu mu génnee ba léegi presse yi sax ñoo leen ko gën a bëgg sax que yéen ñi nga xam ne yéen a def son bi. Mm-hmm. loolu lan la. waaw parce que instant bii nii euh, le mot le mot solidarité. corona bi da ko may sens. parce que tey ku ci nekk sa casque bi nga soloon. da nga ko teggi sol casque le sénégalais. sol casque maam benn benn sauveur quoi parce que ku ci nekk tey sauveur nga mooy. ku ci nekk am na nooy véhiculer message bi mu jàll ñëpp dinañ aaro te bu ñu aaro dinañ nekk ci jàmm peut-être loolu moo tax mais nag avant ku ci nekk da nga doon solo sa casque parce que nguur gi jàpp na ne su su mayee yaanaamaar doole yaanaamaar da koy yàqal. Mm-hmm. donc am na yeneen ñoo xam ne ay rappeurs lañ comme ñun nee nañ jiñ nañ ñu nee nañ yaanaamaar day yàq mouvement rab bi mm-hmm. ku ci nekk ak ay ay raison mm-hmm. donc instant boobu noonu ku ci nekk maam ci sa bopp ngay nekk. loolu la léegi su ko defee nag ku ci nekk toog fi nga toog mais nag bi corona bi ñëwee da ngay gis ne gars ku ci nekk da nga fàtte sa bopp léegi nag lu tax affaire yi yéex a son bi yéex a génn mooy mooy comme li ma la wax rek. donc euh, dañoo nekk ci dëkk dëkk bi am kilifa. donc ñun ay rappeurs lañ duñu ay docteur xamuñu ci feebar bi dara. donc mënuñu ñëw rek génne suñu single rek di wax ci feebar bi donc euh, il fallait que ñu xaar. ba def rencontre ak ministère de la santé. gars yi dem nañ fa fa dal kii ñu dem fa ñu toog ñu waxtaan ak ñoom. gars yi génnee ne symptômes yi lii la. docteur yi wax ko ñu xam ko. pour aaru ci feebar bi lii la ñu xam ko ñu wax ko. ñu ñëw indi info boobu ñu jox ko rappeurs yi ñu bind ko ñu def ko sound ñu def sound bi ba pare delloowaat ko ministère de la santé pour ñoom ñu valider. Mm-hmm. ñoom ñu déglu ko ñu valider léegi su ko defee ñu xam ne ñu bañ a def comme waa internet bi nga xam ne foo jëlee info rek indi sànni ndax baax na wala baaxul loolu la mu leer na ñun dinañ wax te wax ji dina jub. Mm-hmm. et que duñ ci lor kenn donc looloo tax affaire yi xaw a yéex. mais mais kii Aro par rapport ak ministre de la santé bi nga xamante ni moom ngeen joxaat son bi est que ne loolu taxul sénégalais yi di wax naan Y'en a marre état moo leen fay xaalis pour ñu def son bi. Hmm, non non parce que tey instant bi nii. Mhm. état mu ngi laaj ni ñi état instant bi état yi tollul ci joxe xaalis. Mhm. parce que état mu ngi laaj. Mhm. Macky saal mu ngi laaj ministre mi xaalis gars yi instant bi solidarité sëñ bi joxe na donc foofu lañ toll. ñun ñun on done yéen di ngeen lii ñuy def nii joxe la. Mhm. maanaam génne nañ son bi ñoo ko génneel suñu moyen ci boole aaba ne son bi ñoo ci génnee suñuy moyen mhm. instant bi li ñuy def yëpp di sensibiliser. Mhm. suñu xaalis la ñuy paas di dem ak ñëw donc ñu ngi ciy def. bu ñu amee leneen lu ñu ciy def tamit dañ ko ciy def. affaire bi loolu mais instant bi ñu ngi def suñu wàll. ci sensibilisation bi et que c'est le début. donc fii ba feebar bi du fi jóge donc dañ ciy taxaw dinañ dem ci rajo yi dinañ dem sur le terrain def liggéey bi. pour man ñu ngi def suñu ñu ngi def suñu liggéey quoi. d' accord mais ci wax kese la yem wala yéen a ngi def ay acte jëf. waaw waaw waaw déjà lii nii rek <laughs> jëf la quoi parce que du fait que ñu déplacé wu ñëw ba fii euh, lakk essence te kenn joxuñu xaalis comme li nga wax sànq nga ne gars yi ñu naan gis naa gis naa gis naa commentaire ci internet bi quoi ba ñu demee gis ministère de la ministre la santé gars yi naan gars yi dóorkat lañ quoi. dañ leen fay pour ñu def finalement man sénégalais man man je les comprends je les quoi. bu ñu fayee pour ñu def son bi parce que studio boo fa demee gars bi defar son bi courant lay utiliser. Mm-hmm. est-ce que comprendre nga. Mm-hmm. day fay courant day fay day fay day fay local bi. mais au fait ñun son bi ñu ngi ko defee ji pop ji pop malal moo fa nekk. Mm-hmm. te malal yaanaa maaris la. il a mis le studio à notre disposition ñu def son bi foofu. ñu noo paasal suñu bopp dem benn ministre jox ñu paas ñu dem studio. ñu noo paasal suñu bopp. 1814 bi. Ismaïla moo defar biit mooy raxu malal bi moo defar biit moom moom moo nekk loolu moo nekk participation moo defar biit bi moom moo defar prise bi. malal mal participation mooy toog sama émission. voilà malal joxuñu studio bi kon kenn joxuñu paas pour ñu dem defi son bi foofu noonu. Mhm. ñu noo paasal suñu bopp dem ba foofu mu defar biit bi ñu xalaat bind. Mhm. def son bi yóbbu comme ni ko Arnaud waxee jox ko jox ko bi ñu xool ñu validé ko après ñu def vidéo bi envoyé leen ko. Mhm. kon ñun loolu moo suñu amuñu ay milliards yu ñu joxe parce que man artiste bu defee benn son son yi peut fu mu mën a dem sax ki joxe xaalis mu egg foofu ko nu mu tuddee xalif général des mourides joxe na 200 millions. sëñ Muntaxa sëñ mais ñun booy xool son bi lu mu def ci 24 heures moom xaalisam boobu noonu maanaam son bi fu mu egg am na ñoo xam ne yëguñu sax sëñ bi. def na ko ko. kon kon kon donc ñun lu ñu def je pense que loolu moo ëpp ay milliards. parce que ay porteurs de voix lañ am na ñoo xam ne du ñu ay jullit am na ay fans yoo xam ne ay jullit ay lañ am na du ñu sax julli. kon bu gisee mu vidéo bi di dem ak son bi rek dem na États-Unis dem na fu nekk wër na adduna bi instant yi kon loolu rek. participation loolu rek ay loolu jar na ay milliards mhm. waaw. d'accord alors amis auditeurs je rappelle que nous sommes avec Free Free Free Loading. Free <laughs> ak Aro euh, du du groupe Y'en a marre tey ñoom moom day yokk rek aca yokk cere dooli neex yàqu ko. waaw par rapport ak structure mouvement bi. Mhm. xam nga. engagement rab baax ci doomu aadama quoi. Mm. man en dehors de rab may def ni man professeur anglais la. Mm-hmm. lycée Lamine laa nekk. ah laa maa ngi am sama xaalis exemple. mënoon naa toog yow waxal loo ne kon. naa toog croiser les bras man dëkk buy dox ah, que man ma vie. Mm-hmm. loolu boo ko defee man su ma defee loolu su ma tëddee du ma nelaw. Mm-hmm. parce que jàpp naa ne dama war a participer ci développement dëkk bi. même bu ma joxewul xaalis dama war a joxe sama kattan sama xam-xam ak sama xalaat. kon doomu aadama noonu nga war a dundee munoo nekk ci benn dëkk nga juddoo fa màggee fa commencé am liggéey euh, loué appartement takk jabar yor oto bu koñ bi koñ bu amee problème wala ASC bi su mu amee da nga am loo ci yokk yow it waaw d'accord waaye ci li ma bëggoon ñëw rek mooy ba tey ci contexte bi ñu nekk muy coronavirus parce ñu bari dañu gis ni Euh, bon lii dafa révéler failles yu bëri concernant notre gouvernance euh, notamment sociale ak tamit wàllum santé niñ ci delloo ginnaaw wala bokk niñ ci ñàkkee avancé tey jii yéen gestion crise bi naka ngeen ko gisee et aussi pensez-vous que nos politiques sont à la hauteur de de, de la chose est-ce que instant yi xel xaw naa dal bon bon pour dire vrai donc euh, yi li ils font maanaam dañuy dañuy ak li fi nekk mm-hmm. donc du Sénégal kese mais boo xoolee pays yu bëri Afrique seen dara matul. donc sànq rek maa ngi wax ne tey nii bu ñu góorgóorlu lu affaire bi am ampleur sori. day metti parce que boo demee pikin dafa peuplé. te Pikine Dominique moo fa nekk ak hôpital bu Thiaroye yi. Mhm. te nganduñu imaginer. te hôpital yooyu hôpital bu nekk mu mënul jël un million de personnes te Pikine ñaata million la donc kon on n'a pas les doo fi sax nekk naan maanaam am na lu ñuy manqué non non on n'a pas les tey euh, bu ñu eggoon ci ci ci ci troisième phase bi ay confinement munuñu ko. parce que sénégalais bi day liggéey tey. suba mu dundee ko. est la ne donc confinement mooy da ngay dem nga dugg sa sa frigo ba mu fees. nga tëdd moom am na koo xam ne munu ko et la plupart des sénégalais mënuñu loolu. kon ça veut dire que on n'a pas loolu nag moo tax gars yi di insister ci moment bi ñu nekk nii pour tas ful yi. parce xam nañ am na foo xam ne bu ñu fa eggee on va mourir comme des mouches. Mm-hmm. est-ce la maanaam ñun ñëpp on on en est conscient muy gouvernement bi et que ñun ñëpp ku ci nekk boo amee xeltu da nga xam ne Sénégal amul les moyens pour xeex ak virus bi nii su eggee ci. Euh, phase 3 bi. est ce ni donc kon loolu la nii moo tax instant bi nous on doit aider les autorités. Mm-hmm. dañ leen war a dimbali dimbali bi mooy ñu def sacrifice. Mm-hmm. dina métti ci ñun ñu des fois sa liggéey taxaw des fois li nga doon sa liggéey demeetul noonu. am na ñoo xam ne arrêté nañ liggéey. des fois ñu tëj benn marché dootoo liggéey mais nag jar na ko nga sacrifié wu benn deux semaines trois trois semaines muñ pour le euh, pour jàmm ñëpp pour santé nationale bi yëpp jar na ko. moo gën ko ñuy egg foofu noonu pour man loolu la donc euh, nekkul ne techniquement on n'a pas les techniquement. ci maam ci xel ci xel am na am nañ docteurs yu aay. Mm-hmm. mais matériel matériel logistique bi. Mhm. moo fi nekkul. est-ce que ni donc euh, yàlla yàlla bu mu am. Mhm. mais su amoon di nga gis ay mbaar ci mbedd mi. Mhm. parce que noonu foofu foofu lañu jëm. mais est-ce que ça veut dire que nos gouvernants aussi ne sont pas prévoyants est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont failli côté mettre les moyens qu'il fallait pour entretenir le au minimum la population. Euh, euh, ce ce mal maladie là. ñëpp la yee. donc Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne vingt 24 heures H il ne parle que de politique. est-ce que ni xale yi comédie. politique comédie. même maladie bi sax da gis. ñu bi muy soog a ñëw jëluñu ko woon au sérieux loolu la quoi non politique et comédie. Mhm. donc ñoom ñëpp xam nañ ne ñun fi ñu war a taxaw taxawuñ fa. Mhm. ñoom fi ñu war a taxaw taxawuñ fa. donc ils ne sont pas ñun ñi leen topp ñu ne sont pas sérieux mhm. te bu poot boo gisee ma wax loolu mooy ñoom suñu famille yi dañu génnee. donc suñu éducation rek ñoom la ñu am. on n'est pas sérieux du tout on ne pas in on n'est pas discipliné. loolu la donc da ngay gis ne corona bii nii peut-être euh, xar kanam bi mu jox dëkk bi temps normal su amee xar kanam bii la dëkk bi war a am. Mm-hmm. tëli yi noyyi ville yi noyyi espacé et su ma la nii trottoir yi noyyi loolu la parce que set la set bi nekkul ne da nga war a feebar pour nga set da nga war a set avant ngay feebar. Mm-hmm. feebar bu ñëwee fekk fa du am du am empleur du am doole. loolu mooy dëgg. donc ñoom ñëpp xam nañ ne instant bii nii nekkuñu ci. donc instant bi ñu góorgóorlu parce que tey mënuñu leen tirer. maam nekkuñu ci heure boo xam ne. di tax ne wóoy yaa waroon def lii waroon def lii donc union la. donc solidarité la. leen bu demee ba romb après ku ci nekk ñu wax ne peut-être war nañ mën a xoolaat suñu bopp pour yeneen yi ñëw parce que doxalin bi ak yorin yi ni ñu dëkk bi ak ni ñu koy doxalee c'est pas sérieux du tout. Sénégalais Free ah affaire bi romb ak jàmm ak salaam ñu ngi koy ñaan mais fi ne ah tiitaange am na de. waaw tiitaange am na kay sànq doon wax est-ce que no gouvernements sont à la hauteur de la chose parce que pour man gouverner c'est c'est c'est c'est pré c'est prévoir quoi. c'est prévoir quoi. comme ni Aro wax instant yi bon du moment wu ñoom mais bu ñuy xeexee ñun ñëpp instant yi ba feebar bi joge fi. après ñoom nañ leen wax li ñu war a nan la ñu war a plus que xam nañ ko. xam nañ li ñu war a def ak li ñu waroon def bu ñu ko defoon peut-être du egg fii nii quoi. loolu la quoi. léegi man dama gis benn benn affaire quoi. Mm-hmm. Euh, depuis son bi bu génnee ba léegi dama gis retour yi xaw ma nax mi ngi leen di dalam déet da ngeen jubawaat ak sénégalais yi. waaw da ngeen jubawaat ak sénégalais yi quoi. waaw waaw wax naa ko sànq émission bi ah xam nga nit moom tu libre de. d'accepter wala de xam nga. nangul yaanaama di def. tu es libre aussi de ne pas accepter quoi parce que démocratie lañ nekk grave quoi mais ñun lépp lu ñuy def rek Sénégal moo ñu ñor du sénégalais ñoo tax ñu koy def quoi Sénégal moo ñu koy def. chaque jour ñu jàpp ñu dóor ñu def ñu traité ñu de tout le nom d'oiseau mais coow parce que ñun ñoo engagé on est on est des activistes quoi. parce que ay ay porteurs de voix Sénégal moo ñu ñor leneen ñoon am na lu may rappelé euh, parrainage ba ñu koy def 2017 ba ñuy jàpp jour bu ñuy dem euh, assemblée. ñu ngi ay sénégalais yi dem joobi yi ñi dem di mais comme si de rien n'était ñoom ñoom garaawul quoi. Mhm. après parfois nag comme nit ñu rek nit nga parfois di nga toog wér mais est ce que ko quoi. Mhm. yaa ngi def lii pour sénégalais yi mais pourtant après ñoo lay teg la di la sànni mhm. ba ñuy def marche ci non langue ci affaire courant bi mais da ngay lire parfois commentaire ba gis yenn sénégalais yi yow fi nga nekk ñoom nekkuñu fa. te pourtant ñu koy fay courant ñoom ngay xeexal. même ñu ne ci guvernement bi sax parfois. ñoo dañuy gis ne ñoom ngay xeexal mais malgré loolu dañ lay sànni ay xeer fii tout le monde ñëppay fay courant. kon donc ñun bu ñuy xeex courant bi <laughs> du pour ñun kese quoi. man sama facture seeru man je paye dix mille francs xaw ma parfois ay mille. xam nga non cest à ma bokk sama non du ma du ma waaw d'accord maanaam si ma su ma appartement bi ma dëkk. ki ma bokkal ki ma bokkal facture bi. ñun suñu bopp ay sept mille huit mille lay nekk xam nga moo naa toog ne man garaawul man sept mille laay fay sama yoon voilà kii dem bu ko neexoon mu toog ni moom yoonam nekku ci mais am na ñoo xam ne dañu ñu la benn maire bu ñoom kii euh, ba ñuy def seen seen seen kii bi di joxe flyers yi benn maire nee nañu ko indil facture 175 mu koy fayee. kër gi 1 million dañ leen indil si ginnaaw. nga a fay 100 nga nar mille. Mm-hmm. nar a jënd euh, lekk nar a fay njàngum xale yi te amoo salaire da ngay jaay ay jën nooy nooy def mm-hmm. mais da ngay sonn. kon combat yooyu bu ñu koy def. c'est pour tous les Sénégalais du pour Mapaté du pour Mademba. du par du pour APR wala du pour PDS. pour sénégalais yëpp la ñu xeex pour ñu wàññi facture courant bi loolu yoon la. kon mu combat yooyu bu ko Y'en a marre di def yow ngay toll fële di sant eh, ñii ay dóorkat lañ dañoo bëgg xaalis wala opposant ñu leen di financé. yàgg nañ dégg lu nekk ñun dégg nañ lu nekk dégg nañ ko. mais nous sommes immunisés maintenant ci yenn détails yi mm-hmm. vraiment ñun moom le chien aboie la caravane passe mm-hmm. mm-hmm. bu ëllëg bi ñu ah, wax dëgg yàlla xam lu gën a rafet. ay jimi jamono ñu toog si say doom wala say sët ne ah man sama bokkoon na ñu doon xeex Sénégal pour Sénégal jëm kanam loolu ndam la. te bu ñu la jàppee di la dóor jàpp ñu la da nga doon sàcc wala da nga doon viol wala da doon tiraan da nga doon da nga doon xeex pour Sénégal. Mhm. loolu yëpp ndam la d'accord Aro ñu bëri dans leur tête ils se disent que waaye Y'en a c'est des maîtres chanteurs c'est c'est des politiciens déguisés ils ont raison ils ont tort qu'est-ce que ça te fait. parce que <laughs> parce que non si wóor na donc euh, tey kuy suivre Aro wala ngay suivre euh, Free mm-hmm. donc da ngay da ngay xam quoi donc ñun ñëpp ñu ngi ci réseau yi donc man sama page jamais nga dem fa gis may may dingat kenn maanaam lépp li xew lépp yoo xam see sentimental dama koy teg nale mais su su su su fekkee dëkk bi la rek maa ngi ci Guy Marius Sagna Libération yooyu yëpp maa ngi ci mm-hmm. donc mais yeneen sensibilité yi duma ko laal mm-hmm. parce que damay gis ne loolu ku nekk yëfu jàmbur la et que ma wax nga tontu ma wax nga tontu mu indi xuloo nekkuma ci loolu. ma la ne donc en un moment on a besoin des gens qui sont dans pour mën a xool li xew. xool fan la ñuy jaaree. donc lu tax des fois ñu ñuy gagné euh, euh, këru gaa yi. donc am na koo xam ne su gisee ne aaro mu ngi yaanaamaar ba tey génn fa ak nu ko xamee kon y a du sérieux là-bas. Mm-hmm. parce que man sama dund sama koñ boo demee. dama koy teg ci yoon. je ne suis du ma saint nag mais am na yoo xam ne am na valeur yoo xam ne moom laay doxe mm-hmm. est ce tax nii donc loolu day dalloo xelu ñeneen et que benn instant tamit ñun kese ñoo fi nekk mm-hmm. maanaam newuñu ci di wax di bind ay lignes yu bëri di critiquer gouvernement bi di bind di poster. Mm-hmm. on ci terrain bi lañ nekk maanaam lu ñuy gis nii ñu nekk ci terrain bi fu teeku di liggéey. kii ñii ab créé ñu ngi ci benn centre créé benn association man créé naa association instant yi ñu ngi juk ay ay xale yu jigéen ñu ngi leen di récupérer am nañu ñaari gel yu nekk fële euh, CCF di fa def formation donc dañoo nekk ci terrain bi di def population yi di ko gis mais loolu noonu ji li mënu ko gis kenn mënu ko gis parce que nekkul loo xam ne nii dañ koy nekk di ko fësal. Mm-hmm. wala ñu koy wane yóbbu ko TFM pour ñu wane ko wala yóbbu feneen pour ñu wane ko ñun ñoo fi nekk. Mm-hmm. tey ba léegi nii yaa ngi xaar. Mm-hmm. ana yeneen rappeurs yi. ñu ngi si terrain ñuy diingat Mollah Morgun ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne peut-être. dañuy def euh, ay ay direct. Mm-hmm. ana ñu loolu la maanaam ñun société su met ñoo fi nekk. Mm-hmm. loolu la tamit après nit ñi gis nga nit ñi soo leen di gëmloo maam tey tubaab bi dañuy defaat dañuy gëmloo nit ñi ne Dieu n'existe pas. mais si tu dis que les gens Dieu n'existe pas nga ciy def sa xaalis. di ci sonal chaque jour ils vont finir par croire que Dieu existe. am na benn xeex booy toppee di xeex yaanamaa di ko ŋàññi di ko ŋàññi nit ñi dañuy dem ba ne non ŋàññi bii nii nekkatul jàmm. Mm-hmm. kon ñii ñu ngi ci dëgg. loolu la demee léegi nit ñi léegi après dañuy tourné waat ñëwaat ci yaanaamaar. Mm-hmm. parce que tamit loolu la parce que nit ñi saa bu affaire ne taka tembee taxaw teb yaanaamaaree laa. loolu parce que loolu moo tax bu ñu noppee ñu ñu reproché. lu tax ngeen noppi. parce que ñun ñoo tàmm di wax. loolu tamit jaaxal na bi bu dara amee. dañuy naan yaanaamaar yaanaamaar euh, bu affaire yi dafee loow gars yi na loow mais bu yëngu xewee rek dañuy naan ana yaanaamaar après bu yaanaamaar fësalee duñ ko médiatiser sa ñoom ñoo ko doon laaj. Mm-hmm. loolu tamit lu ma jaaxal. qu'est-ce qui se passe xaar xaar ma duwaa tuuri la ñuy wër quoi scoop maanaam loo xamante ni yaanaamaar toj na fii wala dàq na fii loolu la ñuy gën a wane quoi mais coow amul problème mais lu ñuy def ci terrain bi sa pense que. nekkuñu fi rek pour critiquer gouvernement bi ñun heure bu ñu critiquer dañuy indi ay solution heure bu ñu critiquer on a plein droit de critiquer parce que pour man doomu aadama critique te boo nekkee président ci dëkk comme ni Sénégal nga am benn mouvement yaanamaan mu lay critiquer dala war a defar waroo ko xeex. parce que man su ma nekkoon président damay accepter opposant yu témér ay opposant yu yu yu mel ni Ousmane Sonko parce que ñu may wax dama ciy jëlee leçon. Mhm. mu moytu erreur damay accepter ay mouvement yu mel ni yaanamaan duñu may critiquer damay xool baax na sa ministre yi effectivement ñu ngi liggéey wala liggéeyuñu mais fekkee damay jàpp ne dictature la opposant bu wax rek ma jàpp ko tëj ko wala ma koy créer ay dossier pour tëj ko ça veut dire que man je ne suis pas animé de bonne foi mm-hmm. dëgg nit ñi dañoo war a dépassé bu dee yow da nga bëgg nekk président wala nga nekk njiitu benn dëkk dëgg rek tax la jóg da ngay nangu ñu lay critiquer parce que critiques yi ñoo lay defar mm-hmm. benn moo yaa ngi wax sànqroon est-ce que nous sommes avec le gouvernement ou nous sommes contre ñun politique ñu la preuve en est que Macky Sall ba mu soxlee nekk président il est venu nous voir parcelle suñu QG moment yooyu président ministre yi ndal-ndal yëpp amuñu woon accès ci suñu QG bi muy mooy ministre des animaux kii nu mu tudd Mame Mbaye Niang Prodac amuloon accès amuloon accès ci ci ci ci ci QG bi kon kooku bu tax bu taxawee tey ñun ñun ñun posam boobu ñun ñu ko soxla moom dafa nekk tey. parce que Macky ba mu falo woo nañu. yow mu ñu mer moo soxnaam si di seetuñu ay jus yu neex macha allah proposé ñu ay ñu ne ko wax dëgg yàlla. ñun lu ñu doon def nii dañu doon wax ak Sénégal moo ñu ñor poste ñoruñu. kon loolu ku ko wax sa président yow ngay dellu di wax leen parfois nit ñi xam nga la nee nga ne lii du làmp yàlla sax am nañu dañuy ne gëmuñu yàlla. Mm-hmm. da leen di ñuy wax quoi mais ñun lu ñu xam xam nañ ko et puis. kon Macky il fut un temps où seen gaañ la woon. non sunu gaañ gaañ la ba léegi. nekk xam la ñuy critique on critique pas la personne on critique sa manière de. son régime quoi sa manière de gérer les choses. Mm-hmm. est comprendre fii képp ku ñu fi critiquer c'est toujours dans le cadre de bien faire critiquer wuñu la en tant que yow Mimi wala yow en tant que Djily sa doxalin ci rajo bi wala ci ci ci ci télé bi. Mhm. loolu la ñuy critiquer pour nga jéem a changer améliorer condition travail nit ñi. d'accord loolu kese la mais du leneen. le clip Saay Saay comment est-ce que vous l'avez apprécié. waaw <laughs> clip ba mais dina ko xam toute personne ah yow man su ma man su ma defoon benn vidéo fii nii may liggéeyee ci réew mi ma critiquer Mimi dal ci kawam tax ci kawam naturellement prime boo saani clip bi da lay métti da ngay ne kii foog ma tëjlu ko wala leneen ak leneen mais après. xam nga nit yéen boo koo leen woon ci ñu kenn sax parce que xam nga moo ko defoon sax. kër gi moo ko defoon mhm. fekkente ne bëggoon na def dara moment yii c'était pas man quoi. Mhm. parce que dëkk bi ñu ngi wax nii mu ngi dox doxul yaa ngi bëgg am deuxième mandat. nga bugg jël ay ay ay ay activistes nga tëj leen loolu day gën a wàññi sa sa say say point quoi peut-être mhm. là-bas il a été bien conseillé nañu ko gaañ. mu sedd. musique la gars yi dañuy génne seen voilà et puis en bon gentleman bàyyi na mu sedd yàlla def na lu muy def ah. très bien c'est ça alors Aro Y'en a marre et mu ngeeg ñun depuis bien des années ah macha allah le mouvement a beaucoup vécu mais tey yan ji aussi vous avez porté beaucoup de combats yow personnellement yan combat moo la ci gën a marqué yan exploit ngeen réalisé tey jii. mu nekk toujours dans ta tête. waaw euh, waaw mooy bu kii bi rek euh, bu 21 juin bi. Mhm. avec euh, le, rég... le, régime de Wade. waaw waaw parce que waaw oui si diggante bi on a pris de lage waaw bon sept ans wala waay na bon am nañ changement quoi mhm. mais boobu moo nekkoon acte bi gën a fort parce que kenn xaaree ko woon ci ñun mhm. donc boo demee ci yeneen dëkk yi da gis ne opposants yi ñooy def yenn démarches yi ñooy ñooy taxaw yenn kii opposé wu di xeex ak euh, régime bi quoi. Mm-hmm. donc et que lu musul euh, bien que am na daanuñu ko tenté Sénégal. Mm-hmm. mais ils n'ont jamais réussi. donc avec l'air Y'en a réussir loolu noonu quoi Abdoulaye Wade delloo dellu ginnaaw est-ce que ni du coup politique bi euh, xam ne am na beneen force bu fi taxaw et force boobu nag ñu ko menacé donc du coup affaire yi nu mun a fësee ni ñu ko doon defee mënatul nekk noonu. parce que président sénégalais yi président bi ci gën mooy Macky Sall. parce que dafa fekk yaanaamaar a marre taxaw am doole. ci ci ci Abdoulaye sax Y'en a marre amagul woon doole maanaam suñu siège benn kii la woon QG donc implanté wuñ carrément ko mais chaleur mu ngi fi mais instant bii nii on est bien implanté. bien organisé donc Macky Sall jéem na. avec euh, affaire euh, kii bi lead francophone bi pour retirer kiiwam bi. Euh, seen licence seen licence bi juste pour faagaagal ñu mais mm-hmm. réussirul. parce que xam ne ak benn éveil bi ñuy def. ci ci ci jeunes yi parce que bu njëkk ba tu te disais que ne les choses publique wala mm-hmm. les mairies tout ça yow sa yoon newu ci yow tu es donc demal nga xëy nga liggéey. donc ñoom soo leen fekk na yow tu dois demander pour qu'on te rende des comptes. maanaam da am nga droit mairie ba laaj ko lan mooy budget bi laaj dugg est-ce que ni dem euh, fekk autorité bi am say sañ-sañ nga laaj ko loolu xamuñu ko woon ñun ñëpp ci yaanaamaar la ñu ko formé. Mm-hmm. donc du coup léegi dañuy bokk te bokkuñu woon. Mm-hmm. tubaab yi loolu la quoi nga xam say droit xam say devoir donc affaire bi lool la léegi bu ñu demee ba xam ko et que les politiques euh, su ñu xamee ne xam nga say droit et yaa ngi def sey devoir dañ lay xaw a ragal. léegi nag te donc ñun gis nañ ko parce que jàpp nañ ay membres yu bëri mais après na leen di waat nga yóbbu dig même ñu feeñ ca xew da ngay bàyyiwaat. opinion internationale bi xeex nañu ba ñu reconnaître ñu. donc ñu bëri dañ ci roy. léegi nag moo tax boo demee ba ñun ñoo bale Balai Citoyen presque bu kii bu Burkina Faso. après gars yu bëri Guinée Bissau ñu bëri roy ci Y'en est-ce te loolu 21 juin boobu noonu moo ko créé. Mm-hmm. donc pour man mooy élément déclencheur bi nga xam ne léegi jeunesse bi danaan xaaral ñu jóg. Mm-hmm. booloo ay rapport ay journalistes ak lépp lépp am benn combat bu ñuy mëne mm-hmm. mu nekk benn combat bu citoyen pour man loolu moo ëpp solo parce que c'est le début. waaw moom moo créé tey euh, énergie bi yëpp quoi. parfaitement mais euh, Free quand même dans tout groupement peut-être ci biir dina am la xam ne du la neex hmm? est-ce que y a quelque chose qui te déplaît dans ce au sein à l'intérieur non comme euh, ni ñu ko waxee je pense je pense que wax na wax nañ la sànq quoi Y'en a marre mouvement la boo xamante ne dëgg moo ñu boole muy Sénégal quoi képp ku fa def naka sudul noonu dañuy réunion kurpeñ yi buy day day dal sax lay léeg réunion mais bu jeexee jeex na quoi c'est juste parce que boo juumee da ngay nangu ne da juum nga def erreur comme ni ma la waxee sànq je pense que ci rajo bi laa ko waxee fii ko kilifa ba mu juumee fii génn di wax ci problème parrainage bi Euh, ne sénégalais yi nana ni nana na ah, fii laa ko waxee ah dañoo dal ci kawam. Mm-hmm. ak yeneen ak yoo xamante ne ni bu ñu la yónnee benn mission defaloo defoo comme ni nga ko war a defee boo ñëwee dañuy dal sa kaw parce que loolu moment bi loolu la amul nëbbante amul dara quoi. Mm-hmm. bu fekkonte ne am na loo xamante ne moom mooy naqari boobu ba léegi kon bàyyi naa quoi. Mm-hmm. yee kon bàyyi naa ko am ñoo xam ne nekkoon nañ ci mouvement bi gis nañ fi affaire yu leen naqari wala ñoom gis nañ ne dañoo war a fës dañoo war a far dañoo war a feeñtale a voyager. voyager wuñu parce que ñoom peut-être la mu leen indoo ci mouvement voyage mu leen indoo ci bi. Mm-hmm. amuñu ko dañuy bàyyi di sànni xeer ñeneen ñi. am nañu voyage daw ñoo xam ne ñu ngi woon ci mouvement bi. sérieux si dañuy parce que. Sénégalais moo mel noonu mooy loolu doon wax sànq quoi xam ñu critiqué Macky Sall Macky Sall Sénégalais comme ñun fii la juddoo fii la jàngee. Mm-hmm. est ce que comprendre nga jiko moo nekk ci moom. Sénégalais most of the time dañoo bëgg tricher. Mm-hmm. dëgguwuñu ci lu dëgguwuñu ci lu bëri quoi. comment se fait-il que un mel ni Y'en a am invitation ci benn dëkk jox invitation nga dem pour représenter ko représenter Sénégal représenter Afrique li la yóbbu matala ko ko sax nga daw nga sàkki. xam nga loolu yaa yàqaloo sa bopp mais en fait tubaab bi ñu ne xool après moment bi dañuy ne pourtant ñii ak li wax yëpp ndekete ils sont pas crédibles xam nga baaxul. baaxul quoi que da nga yàqal ñu bëri ñeneen bu ñu bëggoon dem du ñu mën a demati comprendre y a des gens yoo xamante ba ñuy dem fii di seeti rebelle yi Casamance am na dañoo wax demuñu. parce ñoom bu yi dem Europe ñoom kenn waxu leen kenn wax kenn kenn laaj na ñoom demuñu bu ñuy dem Europe la dem xam nga yow yi nga xamante ne nii cest yow da ñëw ci mouvement bi leneen moo la animé Sénégal taxul a jóg quoi pour man. Mhm. man bu la Sénégal taxaw jóg bu ñëwee nañ dem seeti rebelle yi damay dem. <laughs> man bu ma maa yónnee ma dem Palestine wala Israël damay dem. est-ce que di nga ñu mu tudd ñun ñëpp fii fii ku nekk jàpp nañ la door nañ la dóor yu métti man 2017 jàpp nañ ma fi. 2017 2017 jàpp nañ ma fi parrainage bi. mais mais ba léegi jàpp la rek. jàpp nañ ñu fi. policiers yi dóor yi di ñu dóor di ñu filmé bañ def def nañu lu nekk mais coow jubul grave loolu yëpp ay sédé parce que kii di engagement am dafa ànd loolu quoi. dafa ànd ak loolu quoi utilisé aussi. Uh-huh. donc euh, mouvement bu ñu demee bu fekkee ñëpp la ñuy jàpp. Uh-huh. donc après kat mooy doxal liggéey bi. donc ñooñu mais loolu quoi dafa ñoo xam ne ñooy uh-huh. nekk ci ñooy ñooy jëmu mouvement bi ñooy nekk ci kanam. lu am ci ñoom lay dal. donc euh, mais Aro bëggoon nañu tam ngeen ñëwaat ci seen financement parce que quelque temps en arrière am na. Y'en a marre jaratul woon dara parce que diabolisé woon nañ leen nee nañ des mouvements occultes ñoo leen di financer euh, que peut que peux-tu nous dire là-dessus sur ce volet waaw donc euh, communication la woon rek donc euh, pour les politiques gis nañ ne peut-être sonal nañ leen. leen donc ñu ne xaaruñu diaboliser leen donc pour euh, wax et que xam nga sooy diaboliser koo xam ne nii xam na dëkk bi xam na nu mu demee. Mm-hmm. donc xaalis bu bëri buy dugg Sénégal. donc ci ay ay banque mondiale lay jaare di dugg ak yooyu noonu. Mm-hmm. te boo xoolee dëkk yooyu noonu ñoom ñooy légaliser ay góor jigéen légaliser lépp. Mm-hmm. boo demee euh, yenn directeur rajo yi am fépp ci àdduna bi des fois ay ay góor jigéen lañ ak yooyu noonu tey am na benn sénégalais boo xam ne mu ngi mu ngi États-Unis di yore billet wu dollar billet wu dollar bi kii bi lañ ci def pyramide bi ak benn ay bi lañ ci def. in God we trust yow peut-être soo gisee soo bu la neexee nga gëm ne yàlla la. la ñu wax mais peut-être am na ñoo xam ne dañ naan la gold oil diamond la mooy seen God. est-ce que la ni de gis-gis la léegi nag comme que comme que nit ñi euh, euh, xamuñu fu dëgg bi nekk. donc pour nga réeral leen rek day yomb. parce que la xam donc mais ñëpp xam nañ ne euh, boo demee Union européenne nag nga dem ci yenn organisme yi donc dañuy def dañuy am seen budget teg ko. est-ce que xam ni nag ñi bind leen seen projet ngeen ñëw appel à la candidature ngeen ñëw. seen projet bu ñu intéressé ñu financé ko. donc yaa a marre su su su su Union européenne ubbee benn kii ne soit appel à la candidature. Y'en a marre dem déposé. bu déposé bu ñu xoolee kii bi. mu mu neex leen. ñu financé. Mhm. bu ñu financé ñu joxe ko. et li ci gën a garaaw mooy euh, jamono yi kii bi euh, dox ak sa gox bi on a financé des associations. Mhm. boo demee suñu suñu page waaw la bëggoon laaj. financement yi bu duggee vous à votre tour qu'est-ce que vous financez. dama finance des associations. Mhm. mais lépp ci citoyenneté lay nekk. est-ce que ni aménagement d'espace. est-ce que ni école bu ñetti mbaar bi. donc Y en a marre moo ko. mais est-ce que y a pas aussi un pourcentage pour le personnel les membres. non non man. man aw ah, ma aw ma salaire yaa naa maar. man bokkoon yaa naa maar aw ma salaire mais nag administration ba ña fay nekk chaque jour toujours. Mm-hmm. ñooñu am na yaa naa maar lu muy teg seen loxo. bien mm-hmm. et que on a été intelligent. Mm-hmm. que suñu xaalis ñun yoruñu ko. dañ ko dénk indaalite francophone. parce que xamoon nañ ne peut-être ñun buñ ko téye peut-être problème am ci. ñu dénkaane ko. léegi ñun xaalis du ñëw ci mm-hmm. donc suñ lu ñu soxla la ñuy bind jox inda inda exécute mm-hmm. léegi calculer gi ñoom ñoo koy def mm-hmm. dafa la wax ni loolu su ko defee man suñu ma joxul xaalis du ma ko luubal jeex na donc côté boobu noonu yàlla daf ñu cee du ngeen laal xaalis duñ ko laal dafa la wax ni duñ ko laal bu yàggul bi ñu waree dem Thiès ci groupe bi n'est-ce pas yaa ngi doon pour gars yi cotiser dañ doon cotiser pour dem Thiès parce que loolu la ñuy wax dañoo ne dañuy dem suñu amee paasu avion dem su añ suñu amul paas avion ñu paas oto bu ñu amul paas oto ñu paas sareet bu ñu amul paas sareet ñu dox mais dañuy dem mhm. slogan boobu noonu la ñuy wax mhm. est-ce que ni et euh, affaire bi du lu may def sama poos mhm. est que ni tey ban image lañu war a woon sénégalais yi parce que question de leadership la quoi après fi la NTS bi génnee quoi nouveau type de sénégalais ban sénégalais nga war a doon est-ce que ni parce man gëm naa ne sans Y'en a marre li may am dama koy am. Mhm. est-ce que ma kon léegi nekkatul mais nag Y'en a mën na ma may dara mooy ma marqué sama temps. Mhm. su ma génnee àdduna ñu ñu waat sama passé ñu gis ne kii mu ngi fi woon pour dëkk bi. Mhm. ñu instant bi ci ci ci ci loolu lañ nekk quoi souci bi lool la. d'accord maanaam on ne veut pas vivre seulement. on veut exister après après notre vie su jeexee. ñu exister des fi. instant bi loolu mooy combat Y'en a marre. d'accord ma comme ni ñu koy rek. waaw Mister Yokk. waaw waaw comme ni ñu koy parce que bon <laughs> question bi mu ko posé woon quoi damay wax ne doomu aadama da nga war a manqué da nga war a bokk si ñi nga xamante ne dañoo marqué seen temps ci àdduna bi quoi ci bépp domaine booy yëngatu quoi. Mm-hmm. booy xool Bob Marley ak Michael Jackson. ay woykat la ñu naan ñëpp ku nekk am nga talent am nga public am nga lii am nga laa. Mm-hmm. su ma la laajoon jamono ji yow. Euh, Michael Jackson ban année la génn àdduna munoo ma que jàppoo ko mais su ma la laajee ma ko wax. parce que chaque année dañuy célébrer anniversaire décès mooy 11 mai 81. est-ce comment c'est parce que euh, nu mu tuddati Bob Marley li mu parole am yi booy xool du ma ne ñun ñoo ëppoon solo yu parole Michael Jackson yi mais boo xoolee ci parole yu ëpp solo parce que combattant la woon dara na xeex ci lu bëri. moom moo tax ba léegi génn adduna mais ba léegi il présent parce que chaque 11 mai da ngay dégg ñu naan la Bob Marley Bob Marley. man Michael Jackson man mi di wax ak yow man mënuma sax ban année la dese de. gis loolu moom loolu moo ñu loolu moo ñu moo ñu wutaleeg yeneen rappeurs yi loolu moo ñu wutaleeg mouvement bi yi. loolu kese la góorgóorlu lañ ba xam ne même bu ñu fi nekkatulee dañu am ne ah yaanaama def na fi lii. la bu dul dañ quoi. Yeah. D'accord alors ma toute dernière question parce que pratiquement suñu fin émission yegg si nañ ci càppaandaw li alors projet bu mujj bu yanama mooy ñoo lànk ñoo bañ courant bi ko apparemment il y a une partie de vous boo xamante ni ñoom ils la partie la était prête à aller négocier au palais ah wàllu courant bi bàyyi ñoom mouvement d'humeur bi ñu nekkoon est-ce que c'est vrai tey jii yow loolu loon ci mën a wax. ma yokkal la ñoo lànk nu mu tuddee du mouvement Y'en a marre quoi ñoo dafa dajale. anti ci lañ bokk waaw ci lañ bokk quoi c'est tout à fait normal mooy comme li ñu wax rek bu mu bu ñu déggul Sénégal bu dara dañuy ana ana Y'en a marre. ñoo am bëri wax dungu ni wax xam nga léegi noonu la demee nag. Euh, loolu nag bañ ko taxee dañu doon gis autorité yëpp ah ñëpp lañ gis quoi. gis nañu ci waa Wade gars yi ne waruñu woon gis Ablaye Wade finalement duñu comprendre mel ni mooy li ma la wax sànq. Mm-hmm. Sénégalais yi ñoom saar bu ñu la bañee bañ nañ la bu ñu la bañee bañ nañ la quoi mais bu ñu yokk courant ñu gis ne Ablaye war nañ mun def benn jéego ñun xeex nañ Ablaye c'est pas la personne Ablaye qui nous intéresse qui mu doon doxalee li mu bëggoon loolu lañ ànd mm-hmm. mais bu ñu amee soxla bu ñu war a wax ak moom pour Sénégal jëm kanam pour intérêt ñëpp parce que courant bu ñu ko wàññee intérêt ñëpp la mm-hmm. dañuy dem gis ko noonu lañu gisee ñoom Pape Diop ancien maire de Dakar gis nañ yaakaar naa gis nañ ay ay politiciens yu bëri gis nañ leen quoi mm-hmm. quant euh, à dem palais pour négocier nit ñi ñoo koy wax. Mhm. nit ñi ñoo koy wax waaw loolu amul quoi. c'est loolu amul loolu amul quoi. d'accord loolu rumeur la rumeur la. ñoo ko créé woon les politiques ñoo ko créé. Mhm. juste pour. Euh, euh, lëndëmal xel yi donc loolu la c'est que problème réalité la ñoom dañuy fay ay nit. Mhm. yoo xam ne dañuy jàng communication ñu nekk ci net bi. wut ay tur yu bëri ubbi ay comptes yu bëri. donc di rëbëjee di rëbëjee. est-ce que mais yàlla baax na ba ñun. Euh, këf ñu yombul. donc on a été ci côté dañ ci teeyoon et ñoo lànk du dara yaanaa maar parce que des fois ñu teg benn question bu bu ñëpp kii après dañuy voté. bu ñu voté même su fekkee ne yaanaa maar rafetlu ko sax donc au finish c'est ñoo lànk donc du yaanaa maar mooy tax loolu du am. noonu la demee donc su fekkee groupe lañ ñun kaat lañ ni ñu wax jubóowuñ bu ñu voté. léegi liñ su su yéen ñett su ngeen yëkkatee loxo donc man damay adhéré. donc noonu la demee mais nag lépp nag dañ ciy waxtaan ci commencement ba ne soit démarche yu mel nii dañ ciy dem. bu fekkee démarche yi nii la mel duñ ci dem. donc loolu ab wax nañ ko et que et que euh, ñaari membre rek presque ñaari membre lañ fa am. est la parce que ñoom ay politique lañ ñu ci bëri. ñu déggoo seen biir kenn wóoluwul kenn donc ñoom ñoo def choix ci yaanaamaar ne nañ jël siège yu yaanaamaar di fa di waxtaan. Mhm. ekk que nañ jël un membre de Y'en a mu nekk ci kaw. Mhm. parce que parce que fekkee naa benn réunion boo xam ne ñoom seen biir am nañu espace mais soo nee soo nañ dem bu Pastef. Mhm. waa Past ñee ne wëy bu ñu demee Pastef kër kër bu ñu nee nañ dem siège PDS waa PDS ne donc di coup Y'en a marre moo fi sësoon. weex dunq moo fi sës donc nag noonu lañu affaire di toppee noonu lañu affaire di toppee mais lépp loo ci mënta gis. ba damay gis ne sunu acte rek la ñuy def sunu wàll la ñuy def. et que ñoo ngi ci. Mm-hmm. tey suba dañ koy def ginnaaw suba dañ koy def man lan laa gëm mën naa commencer nga may ŋàññ. Mm-hmm. mais ma au finish je vais te montrer que t'as toujours tort. Mm-hmm. pour man loolu mooy xeex bi. d'accord alors euh, c'est sur ces mots kon la ñuy tàggoo à mes auditeurs dans cette émission ce samedi nous étions avec Arro et Free Lori non non mais kii man kii man moom lu tax turam bi mënuma koo wax bizarre. doo déglu doo déglu hip hop. Euh, comme gars yi rek comme sànq li nga li nga doon expliquer gars yi avant may tàggatoo. Euh, gars yi combat yi ngay gis yëpp ñoom ñi ngi ci. te dañ leen di jàpp sax. mais journaliste yi ñun bëgg a wane rek la ñuy wane. Mhm. muy Thiat wala Simon. Mhm. Euh, sànq yaa ngi naan aaru ay 2011 2012 boobu xanaa booy la yaay kilifa la mi boobu man sax maa ngi fa. am na benn année ma wax la benn affaire boo xam maa ngi foofu ma wax la benn affaire aaro mii mhm. am na benn année bu muy ñëw moom lañ doon laajte mhm. kan mooy aaro kan mooy aaro benn rappeur tey nekkatul Y'en a marre créé na beneen mouvement pour bañ a tudd turam mhm. bëgg jàpp ko moo tax mu ñëw fës na man maay aaro man la man la ñooyu <laughs> fa la ñu fekk ñu jàpp ko su ma juumul boobu lañ ko njëkk jàpp di boobu ba léegi day dem di ja di jébbal boppam wax ne la ni gars yi nekkuñ <laughs> si caaxaan quoi. lii mm-hmm. liggéey. c'est sûr xam nga sa journaliste yi ñun la a rek lan lay wan. Mm-hmm. muy Simon. caat kilifa mais gars yi lu ñuy daj <laughs> mooy loolu les hommes de l'ombre mm. le gros du boulot c'est ñoom ñoo koy def. en tout cas c'est un grand plaisir d'être avec vous sur ce plateau tey bizarrement tey malheureusement mon caméraman euh, <laughs> n'est pas là mais ce n'est que partie remise incha allah xam naa dañuy ñëwaat gën a waxtaan ci yéen seen aar li ngeen di def mm. gën a xamante ngeen gën a xam ce qui se cache derrière ces messieurs mm. donc euh, c'était un plaisir le dernier mot. plaisir à partager donc euh, bon àdduna waxtaan la donc euh, ñu ngi rafetlu émission bi euh, tu as été brillante <laughs> nice mon ami Jilé aussi mm-hmm. waaw cool donc ñu ngi wax jaajëfal auditeurs yëpp waaw di leen wax ne bon aaro la waaw donc euh, waaw bëgg naa leen nit ñëpp quoi. Euh, fi mu ne moom courant bi teg ngeen ko ci so taloo leen ko. donc mais tey euh, tey ça la santé avant tout. donc mais mais la santé avant tout quoi parce que parce que soo feebaree doo mën a lànk donc la santé avant avant avant tout donc ci lañ nekk nii quoi donc ci wér gu yaram gi foog ñu dox ci. Mhm. et ñu leen di fàttaliku deneen rax seen loxo yi. Mhm. waaw seen bougement yi boo jàppee dara nga bàyyi ko. boo jàppee porte yi raxas leen seen loxo yi et ku ci sëqat nga jël sa conc boo amul sa conc nga jël mouchoir boo ci sëqatee nga def ko ci mbalit te soo wax ni symptômes yi ku ko gis ci yaramam mooy sa yaram di tàng écoulement nasal nga koy am donc sa biir di daw sa put bi di xasan waaw sa température bi élevée trop sa bët yi di xonq wooteel quinze quinze docteur yi dinañ ñëw fekk si la fi nga nekk gratuitement de xool ci lan nga nekk. jaajëf Aro message bien perçu le dernier mot de Free Loader j'y arrive. waaw waaw waaw ñu ngi lay rafetlu émission bi nuyu auditeurs et auditrices yëpp. Mm-hmm. di jaajëfal Djily ci invitation bi di jaajëfal Mimi yow ci invitation bi c'était Frilor Foukenkoog Y'en a marre ak Aaro Sénégal moo ñu ñor lépp loo xamante ne day jëmale Sénégal kanam boo ñu ci woowee allah dañuy ñëw ko Sénégal ca kaw ca kanam. jërëjëf daa soo sëb. merci beaucoup. Dom Ndeye allah rek Galsen Power jaajëf respect si ñëpp. Uh-huh. kon donc ñoo fi jaaroo dans Rewmi People amis auditeurs ñu dem ba beneen yoon toog fi ak beneen star merci d'avoir suivi cette émission kon nag ñu jël euh, parole lu yi di message bi nga xamante ni mooy message di euh, d'hygiène bi ñu joxaat leen ko ngeen gën a farlu ci li nga xamante ni mooy euh, kon mesure d'hygiène yi Euh, di ñaan yàlla feebar bi ah bañ a law mu joge fii ndax Sénégal lii xaju fi ah nous sommes un peuple nga xamante ni il est comme il est donc eh, lii xaju fii ñu ñaan mu dem ci jàmm ak salaam ba lépp revenir à la normale amis auditeurs kon euh, inchallah merci beaucoup et on revient le, la semaine prochaine comme je l'ai dit très bon week chez vous